sunu borom yàggal ko fi lool ba lépp loo xam ne naal na ko liggéeyal maamam ju tedd ja Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul mu am ko nam ko bëggee ànd ko taalibey Serigne Touba yëpp yëpp ak njabootuk sëriñ bépp. xam naa ñu am ay kàddu yuñ bëggoon a laabire ci mbokki taalibey rek e, ci waajtaayu màggal gi ak actualité yi nga xam ne ne mi ngi ciy bëgg a am ci biir màggal gi di ko dooree ci. bisu sëriñ Touba yi nga xam ne saa su daa ñëw dañuy wax ne na ngeen ma ci santale yàlla sant gi yàlla gi nag waxul ci benn façon wala benn mbir bu dul nañ bernde mooy li ko tale dalee ci ginaar ba ci gileem lu waaye man am naa xissa buñ ci dolli sax ne dañ ne nit ki nga xam ne ne am na yéene te amul doole jum ko defe wala dara na fexe ba dem fa ñuy toggee wala fa ñu bernde mu ciy fas bu baax a baax ngir fas googu mooy def te yéene ci liggéeyal sëñ Tuubaa lay ñay togg di génne seen alal di ko joxe nu mel noonu it dal la koy ame waaye lanu lanu tax a toog fii nag ak di ko leeral euh, ku ne xam na ne waxtaan yu mel nii dakkaloon naa ko waaye dama ciy laabire rek ñi ma bokkal sëñ Tuubaa te ñu bokk jamono muy ñu tolloo jamono ak sunu baay yi nga xam ne ne ñoo nekk ci dëkk bi nga xam ne Euh, sañu ñoo wax ci seeni kàddu waaye sañ nañ leen a euh, yëkkatil suñuy kàddu ngir dogal leen ngante ci li nga xam ne ni lañ cay mën a xam ci biti ñoom xëy na mën naa am seenu xam eggu fa mooy Cheikh Mouhamad Mouhamadul mi nga xam ne amuñu kudul moom te nag ba toppe jotee dafa topp ñëpp loolu rek waroon naa tax kuy ak as gor wala kuy ab taalibe wala kuy ab jullit wóoroo yëngal lenn loo xam ne ni dana ko naqari wala loo xam ne ni da euh, lay naqari ci xolam ceew lay jóge yaakaar naa yàgg nañoo défendre ci façon bu ne ci fi jotoon a jaar ay dañoo mujjoon a dakkal yépp waaye lii may bëgg a dégg nag ci dëkk bi mooy ay yuuxoo euh, loolu laa ne woon naa am lu ma ci leeral tuuti mooy Tuubaa moom dañ koo xamee ci ay yuuxoo euh, président bi ma nga xam ne ne dégg naa mu fi ñëw ci diggante Cheikh Mamadou Bassirou moom seex moom moom Cheikh Abdoul Khader am na lu mu ci jot a wax. sëñ Mountakha fan yii jàll ci gannaaw dégg ngeen mu ne lu sëriñ Bassirou moom sëriñ Abdoul Khader wax maa ko wax loolu nag ku dégg kàddu yooyu bu fekkee nit ki daa wax ba noppi te mu wóor na la murit yëpp la waxal koo xam ne sëñ Touba rek la ñor. te bu fi sëñ Touba nekkoon nga topp ko te lu mu wax ca loola ngay dox bu Cheikh Mouhamadou Bassir waxee ne sëñ Mountakha moo wax ci kàddoom war nga koo sukkandiku da doyloo ko jëratul génn di détail tayit nag it wax dëgg yàlla danoo tudd ay waxaloo ko mbumbaay ko ndax coono yi yi nga xam ne ni moo ñu arrivé ci ci nawet bi moo tax dañoo tuulut sax nag nit ñëw ñu koy yuuxoo ka sabote waaw te it lu mu bon bon it man ma xam xam nañ ne euh, bu dee ànd ànduma moom ci ni gisee ci ni ñu doxalee àdduna yaakaar naa ñi ma xam nañ dem ci internet bi waaye day am loo xam ne nii sama pas-pas sama diggante ak sëñ Touba moo tax may wax ngir laabiraale sama mbokk yi nga xam ne ñaa ngay waxee neneen ndax day am loo xam ne it nag bu yàggee kenn da dul xam lu mu nur ndax Cheikh Mamadou Bachir mii nga xam ne ni moom la sëñ Touba di liggéey loolu ay magam ay ay magam jaar fi jox liggéey boobu ba Cheikh Mamadou Mountakha mii daa ànd ak moom ci liggéey ba ku ne xam na uh, sëriñ Alaaji Baara moom Cheikh Mamadou Fadal liggéey bu rëy bi mu liggéey ci Touba sëriñ Sidi al Maxtaar ñëw yàlla na ko suñ borom xare aljana ñëw liggéeyaat liggéey bu rëy bii ba nga xam ne ne topp na leen ñoom ñëpp ba yàlla jox ko cër bii mu nekk ci di liggéeyal sëñ Touba murit yëpp wala képp koo xam ne bëgg nga lu baax muy sab sak dama jàpp ne bu ko gan dee seet si doonul na gan goo xam ne dañ koy séentoo ngir politique li may wax taalibe yi daal mooy comme dañoo nekk ci jamonoy tawat ku munta dem ngir toog ne tekk ne sëñ Muntaxa ngay àndal ca ubbi ga ñun sunu yoon nekk ñu ci ne noppi na wala noppiwut ñun daal gan na ñëw sëñ Basiir moom sëñ Abdul Xaadir li mu wax man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim fo nanu jàppe ne gan yi sëñ Tuubaa yi ñëw moom kenn la ci gan yi ñëw bu ko defee nañ gis ne sëñ mun lay seet si ñu bañ a wax dara bañ a dugg ci détail jàpp ne Cheikh Mamadou Bachir li nga xam ne ne nee na moo ko wax ne Cheikh Mamadou Muntaxa ko wax loo dindiwu ci lu toll ne tarafatal xay ne loolu nag sant nañ ci yàlla ndax am na noo xam ne boo ko waxee ñu ne la mu doon bàyyee ma tax waaye xam nañ ak njàmbaarteem ak mën a muñam ndax cër bii mu am moom it la tax ñu koy sant ci loolu it mooy war naa xam ne cër bu mel nii képp koo xam ne yàlla jox na la ko nga jiite ak njaboot na la wóor ne faaw mu am coow yu mel ni ay wax yu wel ni waaye nag it may defaale may waxaale ñenn ñi nañ def ndànk ndax cëru sëñ Tuubaa bii dafa gaaw te ku ne mën nga caa yegg te ku ne it nag la nga leb la nga nit ñi rek lañ lay fay ba tax na sabotaas bi ak ñemewoo jàkkaarloog ki nga war a jàkkaar lool di wax yenn wax yi génn di gaaruwaale ci koo xam ne nii say sa wajur la wala mu mu mu sa kilifa la sa lépp la lu mën a ñàkk la ci ñun njaboot gépp dama koy laay laay biir ñëpp sëriñ Cheikh Jëmb Fall mi fi jógee yàlla na ko sunu borom xaari aljana boole koog maamam ju tedd ja doomi Cheikh Mamadou Fadal ju jigéen ji fi jógee sëñ ma sàmba jóge yi nga xam ne fan yëpp ci ay ay coono la ñu nekk loolu rek doyoon na ci ñu xam ne ñun tëlatuñ fii ci ay coow ki détail wala ay nit di fi ñëw ñu ko yuuxu man ànduma ak Macky Sall loolu moom ñi ma xam-xam nañ ko waaye man Cheikh Mouhamadoul Mountakha laa àndal ba euh, ka nga xam ne ne daa nekk ci ambassade yi ñëw di ko seet niñ koy tarale dalal ko noonu la président de la république ju jóge fële ca pale ba ne day ñëw ci màggal gi bu ne woon moo ko njëkkee sax nga ne waaw waaye Senghor ko daa def Abdou juuf de ko def Abdoulaye Wade di ko def moom mu koy def ñu ne weeru safar lañ nekk sëñ Tuubaa ne dee leen ci bernde nit loo ko ci mere mere sax war nga mën a muñ ba loola jàll. bu jàllee nag ku ne sa acte politique ak sa gisin man nga caa doxal waaye dëkkub sëñ Tuubaa bi nañ warmaale sëñ Tuubaa ak Seex Muhammadul Muntaxa ndax it sëñ Muntaxa moom ku ko ku ko ku ko ku ko sàmmuli wut ci bañ a def ay détails ci dëkk bi wala ay coow wala mu jël ak kàddu jox ko nit wax ba noppi nga demaat fële di dammat ay waxam. boo ko defee rek génn nga ca ñàll ba te moom dafa jaar fépp fu rafet fu ne jaar na fa mu njabootu sëñ Tuubaa gi fi jaar di ay magam ñépp da leen a topp toppin rafet kon kuy wax rek bala ngaa dikk bañ nañ laa dikk micro ngay wax wala ngaa xalaat ne ah kii de kenn mësu koo ja jam jam ci dara ndax la waroon def def na ko toppi na ba sonn yàlla jër cër bu mel mi jaareel ko ci moom te sëñtubaa Tuubaa it képp koo xam ne jox na la ab cër doonatoo jëmm janga doonoon ñaari jëmm ngay doon mu ñuy bëggal ci jëmmam mooy li ma am ci teraangam ci ay ci ci kanamam mi ngi ñu koy jox ak mbaaxam bu dee ci ndimbal yaakaar naa ñëpp xam nañ ne Cheikh mun Mountakha dimbal gi dimbali taalibe yi ak mbokki julli di xàmmeewut kii ne kii ab murit la wala ab tijaan la bañ nañu ko ba coow yii fi amoon ci ginnaaw yaakaar nañ ne la nga xam ne ne defoon na ko ci mooy daa daa daa daa daa jël ay enveloppe jox ko is bu tarixa yi xamuñ naan kii am murit la wala tijaan la ñëpp la yemale. man nag fi may waxee mooy kon bu président da ñëwee fii ci dëkk bi euh, ku mën a dem na nga dem gunge Cheikh Mamadou taxaa bu ñuy ubbi ñun sunu yoo nekk ci na lu egg la ak lu eggut sëñ Mountakha daal lay moom lay àndal fa muy dem nafa dem bu noppee dëppaat dem ñibbi jëm ñibbi weeru safar yi moom. kuy am murit te yaakaar sëñ Tuubaa wuroo fee yuuxoo kenn donte dëkk bi metti na it dëkk bi metti na tey ñun dañoo tal yu bëree bëri ni ma ko waxee woon dëj yi fi jaar muy njabootu Cheikh Ibra Cheikh Mamadou Fadal rawatina inondation bi nga xam ne nii daa fees dellu Touba ñun ci yooyu lañ war a tal wala xool ñi nga xam ne ñoo encadré dëkk bi nga xam ne mu mel ne ku mel ne Latka wala euh, sunuy kilifa ñu ñuy xool nu ñuy fexe ba dab dabaatal lu mel nii ndax ci ay nawet lañ jëmaat ci day gën a méttee ñu xool nu ñuy fexe ba dimbali taalibe yi ak nit ñi ñu évacuer yu ndox mi moom lañu ñu war a tal waaye waruñoo tal di yuuxoo ay nit ndax bu ñu ko defoon du am xorom ndax dëkkub sañ Tuubaa la ndax jàpp naa ne man mi yàgg naa xeex yu mel nii waaye yu bari dama ko arrêté lii may waxit jubluma ci génn di détaillé waaye jëf dëkk bi dañ ne dëkk bi spécial la yaakaar naa police bi fi nekk sax dañ naan police su spécial kon képp ku fi nekk muy sunu mbokki policiers yi ci laa koy jaarale ak eh, képp koo xam ne yore nga dara lu nga loo xam ne ni ndomba tànk la ci dëkk bi te te ñu la koy jox boo xalaatee ne am nga sa junne moroom yu toll na yow am capacité bu toll noonu ñu waroon leen ko mën a jox nga xalaat ci ne man kat lii ñu ma jox dama cee war a liggéeyal sëñ Tuubaa ndax day lu gaaw nguur moom lu nguur gu dul nguurug yàlla dana jeex nga profité fexe ba satisfaire saw askan moo tax ña nga xam ne ni yëgoon nañ ne ndox mi da daa tëj ndax loolu jaaxaloon nañu bëri te man it fan yi gis naa ne euh, bi ñaxtu yooyu amee gis naa ne man it sama koñ ba ma nekkoon robinet dañ daa tëj te léegi ñu ngi ubbeeku kon day mel ne lañ doon wax am na lu ca lu lu lu ca xew te sëñ Cheikh samat Samad moom sëriñ Soxna bu def ci act bu rëy te yàgg koo def ci ay acte yu bëree bëri nag yoo xam ne saa su nit ñi ndaw yi dëkk bi amee doomi dëkk bi amee ay naqar saa suñ demee ci moom dafa mel ne bu yëkkatee kàddoom lu bari saafara te genn kàddu rek euh, ni yoonu murit euh, di doxee rek day mel ne jëf ju mel noonu la indi muy kenn ko wax rek waxaaleel la ñëpp loolu mooy mooy li dal seex Cheikh Mamadou Bassir sëñ Muntaxa bu ne moom la wax loo wax euh, ci ci kàddu murit yëpp bu waxee kuy am murit wuuratoo xool leen li xew nii léegi murit yi xew ne nag mooy sëñ bi day wax ba noppi nga jël na di xalaat sa xalaati bopp te mu njëkk dañ daan murit day tegu ci yoonu jub xocc bu sëñ bi xasee wax amatul bëgg li sëñ bi bëgg lay lay def kon nag loolu mooy li sëriñ Abdou sama def acte boobu nag defal na ko njabootu ko sëñ Tuubaa yëpp ndax day am ñoo xam ne mën nañoo wax nit ñi dégg leen am na ñoo xam ne danañ bëgg a wax waaye dañoo wax kon nag nañu feexe ba dimbaliwaale waale ñu lépp loo xam ne dañ koo tëjoon ngir sakkanal sëñ Tuubaa amut lu ñuy sakkanal sëñ Tuubaa lépp daa daje ci moom xam nga am ndox boo koy sakkanal day mel ne ndox moo xam ne ne day jeex sëñ Tuubaa la maanaam bu doon dañ naan teraanga yàlla da ko jox cim ndox la ko njëkk a tàmbalee. kon ab dëkkam bii ndox wuru fi man kon képp koo xam ne dénk nañ lam ndox ngay tëje woon day mel ne yaa ngi saboté sabo saboté sëriñ bi kon nag nañ ubbiwaat tiwo yi ndox mi di ball ñëw ñëpp màggal ci jàmm ndax it corona bi ñuy wax ne mi ngi fi yaakaar naa ak cat war na cee àndaale ngir di moyo micro bi kon dañoo war di sangu di jàpp di laal sel yi waaw kon nag loolu laa ne woon naa ko wax ndax euh, sëriñ Basiiru it dafa sonn ci lu mel nii te ñun ay doomam lañ sëriñ Moodu moom sëñ Abdul Xadar mooy taawub sëñ Abdul Xadir sëñ Basiiru mooy caatum sëñ Abdul Xadir kon bu ma ciy wax la may wax moom mën mën na ko bañ a mën a wax ndax nit ki mënut leeral boppam waaye nag day metti it ci ñun suñuy xol nit ngay laal way juram ba noppi muy waajuram di ko muñ te kenn amut foo ko jooyee te ñi koy laal ñu ci ëpp bu ëpp ci mbokk yi lay doon te ku ci wax wax ju mel nii ba àdduna sépp di ko dégg muy wax ju ñaawit boo doxee tuuti sëñ Tuubaa def la lam la def sa vidéo yi desaat fi ci rëccu dong ngay mujjee kon nañ ko wekk te suturaal ko te wormaal ko te xam ne bésub sëñ bii mu waxoon ne bu fekkoon ne màggal gi dañ koo bëgg a yàq ñu bëgg koo tas dégg ngeen wax ji wax ju am solo jëm ca waxoon suñuy bakkal nañ ñu jaral koo kenn gënu ko gënu koo bëgg sëñ Tuubaa waaye dañ ne njiit nag bu la yàlla jiitalee ak Ismaïla am ordinaire mi nga xam ne dayow ci mbedd yi fu ko neex dugg mënuñoo bokk la ngay mën a tolloore ak la ngay mën a maslaa ak la muy mën a dégg la muy mën a xam yow mi aw ci mbedd yi mënoo koo xam kon mënoo fexe fexe ba seeni kàddoog jëfin bokk ba ilaa yow mi diin nit nag balaa ngaa xam nit coono bi muy daj yàlla teg la fam yàlla teg la fam ko teg boobaa nga xam ne li muy gàddu metti na kon nag ñi ngi jéggalu taalibe yëpp di ñaanal taalibe yëpp nag na wax di wax ne képp koo xam ne ni nekk nga ci mbas mi muy mbënn mi ndox dugg sa kër ñu ngi la koy maslawu mastawu ñun njabootu sëñ Touba gi nekk ci dëkk bi ndax eh, biñ na sëñ Touba daa ñëw fii ci dëkk bi eh, képp koo xam nga dag nga sab dëkk bàyyi sab dëkk gent ñëw Touba sëñ Touba rek nga yaakaaroon kon buñ sañoon doo fi am lenn loolu na xari waaye nag adduna daa baaxoo di jag te nag daanu dajut fépp kon nañu fexe ba président de la république lii nga xam ne nii ñi ngi koy sakku ci njabootuk sëñ Touba gi ndax am na ñoo xam ne nii moom bu ñu yégée ne sëñ Mountakha moo ne na nit ñi dal murid yoo xam ne ni moom seen yónneekuti dal la ñuy def lijjantiwul yooyu ñu jóge ci dëj kon ñun waruñoo tal ay yuuxoog yooyu waaye nag nanu fexe ba yi nga xam ne ni mooy ay digle 4 milliards yooyu ñu wax ma nangam milliards yooyu ñu ne dañ koy def ci fii nga fii nga xam ne ni fi lay ndox mi jaar nañ ci gaaw tam mu bañ a doon waxi kese ndax waxi kese it mooy indi saa su ne nit ñi bëgg a fipp waaw kon nag yàlla na ñu yàlla doole doole doole dimbali te sëriñ bii nangul ñu sunu màggal Cheikh Mouhamadoul Mountakha it gën fay yàgg ndax sàggub sëriñ Touba la. yaakaar nañ ñëpp xam nañ ci lépp lu noonu ay yàqu muy tarixa yi tiijaan xaadir laayeen gis ngeen aw doxalinam kon fii daal la waxoon rek dafa fa am fan yee nag ma ma déggoon lu lu xaw a doy waar lu ma metti loo xamee ni danaa ko ci waxaale ma bëgg it murid yi dalal seen xel mooy am na fi wax ju fi génnoon joo xam ne dañ doon wax naan ay bomb yaakaar naa yaakaar naa yëgoon ngeen ko mu naan biir jum biir jumaa ji xam ay bomb Tuubaa daal na leen wóor ne ay bomb daal ku ko fi bëgg a indi ña ko bëgg a indi xam nañ leen te yaakaaru ma ne nit dana fi jële fin na ngir bëgg ko fi indi te dalut sa këpput sa kaw fii daal boo déggee ñu ne bomb takk na fi mooy mbana yi ñuy waaj a taalal murit yi muy mat yooyu di takk daal bu dee luñ jàppee ne ay bomb la yaakaar naa matt yi ñuy tegi mbana di ko di ko di ko berndele taalibi sëñ Tuubaa yi takk-takkal yooyu daal xëy na mooy bomb yi ñuy bëgg a wax waaye ñun tërul lu juñ bernde jàng xasida jàng alxuraan salaatu ala nabi nit dalay gaañ ba noppi naan la nga ne ko jéggal ma yow yow dañ laa gaañ ba noppi ngay jéggalu kon ñun jàmm rek ci lañ xam ci la ñuy dox kon képp koo xam ne jël nga fitna ngir andi ko ci dëkkub Serigne Touba gi rawatina Sénégal fitna jooju ci yow dong lay delluwaat te yaakaar naa ay leçon la ci yi jàll ci dëkk yi yi nga xam ne ni suñuy xe suñuy mbokk yi euh, dëkkandoo lañ nga xam ne saa su ne rek leçon yaa ngi ñëw par par ndànk-ndànk moo tax. ku ne rek li ngay dund ci sa dund demee ci sam xel te bañ see demee xol ndax ak rëccu rek lay mujj daw ndànk dal ndànk lañ cay wax ndax bu dee gan nga ngay ñëw te miinoo ab dëkk loolu rek doy na laaj ci nit ki bu duggoon ci ab àll boo xam ne dafa lëndëm te xamu fa nam na mi daa doxee ca fa mu miin bokkut ak na mi doxee fa nga xam ne ni miinu ko mooy fu ne rek ci def ndànk ndax dañoo nekk ci nawet te suñ dëkki Afrique yi doole jooju amuñ ko ba tax na tëli yi boo gisee yu ci bëree bëri baaxul te ñu nit man dama ko dama dama cee sonn ci di ko wax dama ne ñun ni ñuy liggéeyee daanaka moom ni état yi léegi-léegi nag dañoo xaw dañuy xaw a jege tuuti te loolu ñun dañ ko war a génn suñu bopp heureusement comme am nañ lu mel ne Touba ca kanam ñuy ñuy jàmbaar moom na man man li may waxee ne man ni ñu war di liggéey mooy bu ñu ne fukki étage wala fukki immeuble la ñu war a tabax duñ buñ jëlandoo juróom sumbandoo ko dañuy tàmbale ci benn ba mu egg nga defaraat beneen bu dee ab tëli it noonu la wax. fépp boo xam ne tëli la woon te nga xam ne ne ay pax a nekkoon ñu teel ko defar ndax it Touba ñu mën a muñ la it Touba moom kuy wax xam nga ne ñu mën muñ lañ ndax léeg léeg léegi li leen di naqari bu fekkoon beneen dëkk la explosé nañ bu yàgg. comme ñi ngi muñ nag nañuy fexe nag ba di leen dimbali nag wax dëgg yàlla di leen teel a gestu ndax waxtaan it wax dëgg ca la kon nag yàlla na nu yàlla doolee dimbale yàlla nañ màggal màggalu jàmm te président it bu ñëwee discours bu mu fi def te boo xam ne ni ab diggaate la na ko mottali ndax wax la koy deñal mooy doy loo waxi ku samul kàddoom loolu sëñ Tuubaa ko ko laaj na ko wax ku koy lu koy deñal mu ne ko xanaa doy loo waxi ku sàmmul barkeel wéree la ca jiitu te am yar ak i teggin te doyloo ca lañ la jox te sam xëy dafay teelit nga njax laf te way bu wér te bul bëgg bay dik kenn luy te xelam ma ax te sab sànc lum rëy rëy sa wax dee ko sàmm nag te wax jii ko koy sàmmit liggéeyam du rax du nax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.